Euh, yaay Fall bi maa ngi lay ziar yaay booy. maa ngi delloo ziar. maa ngi lay euh, baalu àq bu baax ci weeru koor gi di ñaan yàlla boo leen di jégal j'espère que nga ma. amiin man tamit maa ngi leen di baalu àq bu baax leen jégal. bëggoon nañu xam nga présenté wu nit ñi xam yaay kan. bon alors man je pense ñi may suivre war nañ ma xam ne sax Salla Bousso les Pod des Marichou ñu gën ma xam si lay nen ne. yow yaay. Salla Bousso les Pod des Marichou ñu gën ma xam si nen ne. d'accord Pod des Marichou bi nga xamante ne da ngeen a fay. fay ñu de dañoo arrêté. bete bete fay na leen.

bëggoon nañu xam euh, en tant que yaa ngi si Marichou euh, Soumboulou di seen euh, collègue moom tamit nekk artiste ngeen bokk milieu showbiz bi ñu gis Bété Bété rôle bi mu joué daf ko réussir ba tax na ñu bëri di ko critique sa taxawaay en tant que yow boo féete woon place déjà dama koy félicité parce que rôle yombul ñu jox la ko nga incarné ko nit ci buñ ciy coow rek c'est parce que réussir nga ko loolu rek dañ ko ciy félicité comprendre na ñu koy apprécier aussi bu baax parce que la rek comme ni ñu ko waxee donc bu ko defee nit ci si coow mooy réussir na ko. d'accord kon gis na ni ñi nga xamante ni rôle bi nga xamante ni joué nañ ko ñi nga xamante ni moom la ñu doon dañoo war a comprendre ni rôle la rek. waaw bien sûr rôle la rek rôle moom mbubb la booy sol rek soo paree da koy simbi parce que nit li muy joué nekkul ni que moom noonu la mel donc nit ñi nañ ko comprendre rek et puis aussi maison li ñuy def jàngale moo la si tax a jóg donc.

nga fekkee li nga xamante moy 3 troisième édition bi nga xamante ne euh, mooy ndogu partage bi tombé tombeek ce sista anniversaire am tay luma lay def mais goudé nga nak tamit. waaw goudé na xam nga rek dañu nekkoon ci tournage mais wayé dama ne woon damay baye lépp tay dañu téla arrêté tournage bi ma jóge tubaab jalaaw ñew mais franchement mu nekk euh, un plaisir parce que très sérieusement li dafa nekk initiative bu am solo bo xamante à chaque fois dañ ko war di ko def donc li ci gëna incroyable moy chaque édition da nga gis édition bu ñëw benn édition bi day gëna a donc euh, mu sommes tous les gens dañuy ñaan yàlla ñu def chaque année parce que c'est quelque chose de très magnifique parce que y ay 2000 packs de ko séddale ak tamit 100 euh, familles qui nous ne di offrir ay di donc c'est extraordinaire les organisateurs man ñoom laay féliciter di leen encourager bu baax a joyeux anniversaire également suñu sister di ko wax ne bés bi mu tombé bés bi mu nekk ci organisation bi di ci liggéey donc euh, misaal la quoi donc macha allah ñu nous souhaiter le meilleur des anniversaires quoi. Baifal VIP hein. son nom c'est son surnom c'est Baifal. Não, non non jël leen ko mu wax jël leen ko bu leen coupé de bu leen coupé Sénégal bu leen coupé bëggut a wax ci anniversaire bi kon loolu la wax bëggu jëlal jëlal bëggut a jëlal anniversaire bi jël leen ça te fait quoi tey.

et di leen remercier aussi si geste bi rafet na torop di leen ñaanal guddu fan yeen tamit ñu fété ko ay déwéni déwén dama contane bima ma annonce bi mu tomber ak sama jour anniversaire comme man euh, chaque année damay joxe ndogu mané na pourquoi pas ma ñew bolé ko fi ñu def ko mu nekk ben té vraiment rëccuwuma ko gis na taxaway bi gis na dégg na ñaan vraiment ñu ma ngi leen di remercier bu baax di ñaan yalla ñu teewee ko ay ati ati at inshallah gay Bak, mon frère, mon ami.